asalaamaaleykum mbokk yi tey nag dama def vidéo bi ngir ñu def taxaw seetlu ci li nga xamante ne maanaam mu ngi euh, lëmbe réew mi euh, euh, gars yi yaakaar ne maanaam lu ndaw la fekk ne lu rëy la ndax àdduna bi ñu nekk ku defarul yaa yàq yaax yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xamante ne dañuy defar fi may tàmbalee nag moom mooy caba caba dafa am conseil bu ma lay jox en tant que frère mooy nga delloo si sa xel te tuubal sa ndey ndax mënuloo am lu ko sut mënuloo am lu ko gën ci àddina gis nga yaay yaay rek la mën doon tey nit ñi nga xamante ne yaa ngi leen di jox sa nopp dékk ko ñuy wax nan laan li yëg li yëg li yëg lii bu doon ñoom la man leer na man duñ ko defee noonu ku si nekk nag mi ngi ànd ak waayam bul nangu kenn di la xañ sa waay sa yaay mooy sa waay amaguloo boroom kër ci li ma njortu kon sa àjjana mi ngi sa peggu ndey demal tarbiyu ko li muy def si yow ak li mu daj ci yow du kenn ku koy daj ci yow gars yi mën nañ la jàppale bien sûr mais jàppale bi du wéy fii ku bàyyi say mbokk dem si mbokki jàmbur yàq nga ko moom la olof naan ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk nga fa boroom mu ne faax toog jamono ji day gën a metti gars yi dañ leen naan dinañ la jàppale dinañ la épaulé ab yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur gémmiñ gu yàlla xar yàlla dina si sànni pepp dëgg la on n'en disconvient pas yàlla dina la jàppale mais caba euh, ndimbal loolu soo bëggee mu yegg si mu gaaw bëri te demal nga déggal sa yaay ndax gaay bu yàggee tuuti dañuy dem bàyyi la ndax ku fii moom mooy li ma la expliqué léegi rek jamono dafa métti dafa tar ku si nekk sa bopp nga tal ku si nekk sa bopp nga tal mën a mën a bi rekk bëri waaye ku ku wéet xam boppam sénégalais yi nañ leen defar te bàyyi yàq nañ leen jël yu rafet yi di ko nëbbee lu ñaaw li caba yi xale bu ndaw la demagul fenn xamal leen ko ni li muy def du yoon way jur kenn du ko wili pandi kenn du weer sa yaay caba delloo sil sa xel yaay nga baal ma mais euh, il faut tamit ñu waxtaan ci sa mbir tuuti ndax dama euh, excusez-moi dama seetaan sa benn vidéo euh, nga ne caba bu doon sukuraat sax bu ñëwee baalu la doo ko baal nga baal ma si kàddu yi de jéemuma la sax jugé waaye man dama jàpp ni côté boobu da nga juum man tamit mën naa juum waaye li ma jàpp mooy que wéy jur bu nekk danañ la laaj naka nga sàmmee woon sa njaboot pour yow yàlla dafa jël caba rek jàllax la ko nii rek déedéet daf ko teg ci sa yoon ngir nga am loo mottali sa digganteek moom yaay caba mi jéggal ko caba mii li nga mën ci moom amul kenn koo xamante ne mën na ko ci moom jëlaatal sa doom nga uuf defaraat ko yow tànnuloo caba caba tànnu la yàlla moom moo leen boole yàlla moo ne caba mii ci sa meew mii lay meññee kon yaay sàmm ko aar ko yiir ko suturaal ko jël ko sangu ko defaraat ko làqu ko fa yàq yeggul sa doom la mën nga def ci moom lépp li nga bëgg def ci moom li baax li nga bëgg mën nga ko def ci sa doom bu la kenn découragé loo bu la kenn wax ne mënul nekk kii yàqu na ba pare mënatul baax eh na baax fii ku bon amul ku a am ku réer ci àddina nag sawara moo lay gindi balaa safara di la gindi te nit yi nekk fi yaakaar naa ni war nañ mën a def suñu kémt lay kàttan jàppalante góor jàpp ci góor ngir réew mi mën a jëm kanam sénégalais yi nañ leen bàyyi wax ju sew ji ak diw moo def lii diw moo def lii diw noonoo non àdduna tollatul foofu nañ leen jàppalante nañ leen aarante nañ leen nañ leen di defar nañ jël yu rafet yi di ko di ko nëbbee yu ñaaw yi fa la réew mi tollu su ñu bëggee yàlla jàppale ñu suturaal ñu nañu suturaalante tey waxante dëgg waxante dëgg bi nag du lenn lu dul ku ci sa moroom deful lu dul yoon oo ko nga waxtaan ak moom boole ko si sa bopp du danga koy beddi du danga koy sànni déedéet yàlla mu mënoon nañu beddi mbaamu sànni ñu ndax chaque jour ñu tooñ ko mais defu ko chaque jour mu ngi ñuy suturaal chaque jour mu ngi ñuy dimbali kon ñun suñu digganteeg suñuy moroom naka lañ ko war a mën a bañ a mën a sàmmi nañ góor góorlu jàppalante di muñalante yaay baalal sa doom uufal sa doom yiiral sa doom suturaalal sa doom caba nga xam ne lii nga def sa yaay yow jigéen nga te yaay nga bugguloo ëllëg sa doom def la ko loo bañ ku la ko def nag bu ko def keneen rawatina sa yaay yonent bi moo ko wax de lu waay def dinañ la ko def caba balaa loolu yëpp am jëndal lu sedd loo xamante ne dana sedd sa xolu yaay nga dem nga tuubal ko nga jéggal ko te xam ni gaa yi lan la noo sa yaay moo la tooñ sa yaay moo la lii sa bëgguñu la suñ la bëggee dinañ ne la demal nga jéggalu sa yaay yaay yow itam bu sa doom ñëwee jéggalu jàpp si te yàlla tax ngir jëmm Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga jéggal sa doom suturaal ko fàtte lépp. uufaat sa doom mën nga def ci moom jikko ji nga bëgg sa doom yor ko mën na nekk mën na nekk yaay yi te ñëpp pare nañ ngir jàppale la ci loolu ngeen baal ma nag bu fekkee ni kàddu yi am na lu si dëng ngeen jàpp ni sama jëmm ju xeebu jii na bu dee am na lu si jub nag ngeen jàpp ni du si man si yàlla la jóge jërë ngeen jëf c'était Baye Demba